Ah, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu maa ngi am mbégte ñëw teew fii wax ji nag lu gudd ndax ñun ah suñu waajur daf ñoo baaxee andi ñu kokki ñuy jàng alxuraan ñu fekk fi ah sëriñ Ahmad Saxiir loo mu nekk koo xam ne nii taalibe yi moo ko loon boppam taalibe yi moo ko gënaloon njabootam mu ni jàngal alxuraan fii kenn xàmmewu fi woon ku sa baay yor dara ak ku sa baay yoru dara ku sa baay nekk sëriñ ak sa baay nekk sëriñ loolu ñun ñëpp ko mën naa fekk loolu nag li mu doon liggéey dafa am ñu ko ci doon jàppale ci liggéey bi ci jamono bu métti boobu muy jamono boobu mooy ñu mel ne alhaaji Makhari Gueye ñu fàttaliku leen ak alhaaji Aatu Xulle ak Ahmad Lo bu Louga ak ñeneen ñi nga xam ne nii suñ leen tuddee ak euh, sañ xaadim euh, euh, awa ba ñoom ñëpp daan ko ci jàppale ak ñeneen ñi nga xam daan ko ci jàppale kon tey ñun buñ toogee ba léegi ñun ñu jóg yàlla baaxal ñu ñu di ci jéem dañuy fay bor wala fayaguñ bor ba mat ndax euh, lim daan wax moom ñun àggaguñ fa daf doon wax ne su ma sañoon dama lay jàngal di fay say waajur di fay say say say kii ba nga ba nga ba nga matal kon nag lépp lu luñ def ci kokki rek wax dëgg yàlla ñun àggaguñ fa ña fa jiitu woon àgg sëñ Maxtaar tamit ak sëñ Fàllu dañoo bàyyi lépp ak ñi mel ne moom ñëw toog ci daara ji te ñoom ñëpp amoon nañ possibilité dem feneen kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ah xanaa ma sànni ci ñaari kàddu ji araab rek xam naa ne nag déggatuma arab محضر الوزير الوزير السعودية هو شخصي جيد زرته وقلت أنا أحب أن تجي إلى كوكي اليوم زار الشيخ زار الشيخ بهمة بهمة وزارة المدرسة luuti nag laa ci wax jàngoon naa arab dégg naa ko ah, sëriñ Baara Ñang mi muy wax nee na daam xulle moo ko jàngal man maa jàngal daam xulle kon dama fàtte rek waaw alhamdulilah te sëñ Baara Ñang mi xam ngeen ne lim li mu nekk ci li mu lef ci daara kenn def ko ci te waxumal def ko waaye bokk na ci ñi nga xam ne nii génn nañ daara continué waat daara jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, waaleykum kon ñu.